Bonjour, je m'appelle Tata Soukei, enseignante dans le jardin d'enfants Sidi Barham. Je vous présente mes salutations les plus respectueuses en commençant par le Khalif général de Medina Bay ainsi que l'imam de la grande mosquée de Medina Bay et les autres comités et les autres membres de la comité. Mal suis Tata Soukey je suis ñëw ici fas yéene sama xalé li nga xamné mom lañ jotoon qui gis ci biir classe yi ak li nga xamné ne jox

waaw ba tey ndox lañuy raxasoo am na leneen am na leneen lu may xaar waaw yow booy raxas yow lay def yow dangay jël saabu très bien da ngay jël saabu nga ko ak ndox bi léegi saabu boo ko defee sa loxo yi nooy def da nga ko ci forote soo ko ci forotee nga raxas biir loxo yi raxas biti bi raxas digg bi raxas diggante yi ba mu set très bien yow est que soo wàccee loolu ngay def soo wàccee dangay raxas sa loxo yi def noonu. très bien tàccu len ma waaw kay bala nga lek da ngay jël saabu ak ndox nga ba set wecc nga soga lek très bien moy avant de manger je me lave les mains avec de l'eau et du savon bëgg na nag ngeen koy pratiquer su ngeen ñibé ngeen koy pratiquer diko def ci kër ga di ak saabu ba set ngeen soga lek de ngeen ndax salte baaxut salte mooy indi mi boo sa loxo day am microbe te sa loxo bu amee microbe soo ko lekkee mën nga cee jëlee feebar dégg ngeen gis ngeen Macky Sall sax daf leen koy wan ci télé yi muy raxasoo yooyu yëpp daf koy wan pour ngeen xam méthode bi ngeen di naa nag ngeen koy def seen kër yi ngeen raxas seen loxo yi ba mu set wecci ndox ak saabu ba mu set ngeen lekk dégg ngeen ku ngeen gis muy lekk tamit te raxasuwul ndox ak saabu ngeen ne ko tataa su koy nee na sooy lekk dangaa war a raxas sa loxo yi ndox ak saabu ba mu nga soog a lekk dégg ngeen Ok, très bien noonu laa ko bëggee nous ñu ñëw ci logico mathématique les couleurs on a deux types de couleurs on a les couleurs primaires on a les couleurs secondaires les trois couleurs les xaar bala ma koy wax léegi ma li ma pare couleur la couleur jaune les ban couleurs la couleur bu bleu très bien bii couleur bu bleu la lii ban couleur la couleur bii nu mel bleu déedéet bee nekkoon bleu bii nekkaat bi la bii du bleu bii couleur bu mel nan la rouge déedéet du rouge de bii couleur bu mel nan la bu jaune très bien tàccu leen ko bi couleur bu jaune la couleur bii beneen couleur bi nag couleur bu lan la bu xonq très bien waaw couleur bu xonq la léegi xonq nan lañ koy waxee ci français moom laa bëggeen waxal ma ko rouge très bien couleur bu rouge très bien Les ñetti couleurs yi moy les trois couleurs primaires Je vais bëgg suma waxé waxee ngeen répété ko ngeen and ak man ngeen répéter ko ci kaw ngeen wax len les trois couleurs primaires sont le bleu le jaune et le rouge les trois couleurs primaires sont le bleu le jaune et le rouge léegi damaa bëgg ku ñëw fii mu répétel ma ko may dégg di ekkati en même temps couleur yi di ko wane ñu koy xool mu mën a xam ndax xàmme ngeen ko wala xàmmewu leen ko te bëgg naa fu ngeen gis couleur bu bleu ngeen wax ma ne lii couleur bu bleu la fu ngeen gis couleur bu jaune ngeen wax ma ne lii couleur bu jaune la fu ngeen gis couleur bu rouge ngeen mën a xàmme ne lii couleur bu rouge la dégg ngeen bëgg naa fu ngeen ko gis rek ngeen identifier ko ngeen xàmmee ko dégg ngeen acca répété leen ma dégg les trois couleurs primaires sont le bleu, le jaune et le rouge. Les trois couleurs primaires sont le bleu, le jaune et le rouge. C'est clair? C'est clair? très bien bëgg naa nag fu ma ko waneeti ëllëg bu subaak jàmm salaam su ma dellusiwaatee su ma leen ko laajee bëgg naa couleur bu ma yëkkati rek ngeen wax ma ne lii couleur bii la lii couleur bii la lii couleur bii la très bien bon notre leçon d'aujourd'hui porte sur les couleurs de la porte sur les couleurs secondaires on a trois couleurs secondaires ona a le vert le violet l'orange Les trois couleurs secondaires sont le vert, le violet, l'orange. Les trois couleurs secondaires sont le vert, le violet, l'orange. Les trois couleurs secondaires sont le vert, le violet, Lorange. li couleur la couleur bi ma yoré ni couleur le le violet très bien bi le violet couleur bi moy le violet fu ngeen ko gis ngeen xamé ko ngeen le violet. moy le violet li ban couleur la le vert très bien le vert vert fan ngeen ko meuna gis fan ngeen meuna gis ngeen couleur bu verte la lan la verte lay garab très bien garap garap copie yi dafa verte garap copie yi dafa verte très bien l'oranger l'oranger couleur bu l'orange fan ngeen koy en général l'orange am na bu orange ak orange ci boppam am na orange yoo xam orange très bien comme orange marocain bi dafa orange très bien loolu mooy orange fu ngeen gis orange ngeen xam ne lii orange lii mooy violet lii mooy vert bëgg naa ngeen identifier ñetti couleur yooyu noonu mooy les trois couleurs secondaires ma mukk mukk mukk ngeen koy fàtte heure bu ngeen gisee fu ngeen ko mën a gis ngeen xam ne lii couleur primaire la ngeen identifier ko ngeen xam ne lii couleur secondaire la ngeen xàmme ko dégg ngeen bëgg naa fu ngeen ko gis ngeen xàmme ko ilaa su ma ñëwee taxaw ci classe bi laaj leen lii ban couleur la ngeen ne ma lii la lii ban couleur la ngeen ne ma lii la lii ban couleur la ngeen ne ma lii la c'est C'est clair Très bien. Hmm. Bon. maintenant nous ñu qui logique mathématique les couleurs du drapeau Sénégal et la définition de sa couleur les couleurs du drapeau Sénégal sont le vert le jaune le rouge une étoile vert au milieu. Les couleurs du drapeau sénégal sont le vert, le jaune, le rouge et une étoile vert au milieu. Les couleurs du drapeau sénégal sont le vert, le jaune, le rouge une étoile vert au milieu bëgg naa fu ngeen gis drapeau Sénégal ngeen xàmmee ko ndax drapeau Sénégal am na pays yu bari yoo xam ne vert jaune rouge la mais ni nga ko defaree ute na waaye Sénégal moom ni ngay xàmmee bosam mooy biddiw bi nga xam ne moo nekk ci diggu jaune bi ci ngay xàmmee couleur drapeau Sénégal foo gis vert jaune rouge nga gis biddiw ci diggu jaune bi xamal ne bii drapeau Sénégal la dégg am na vert jaune rouge mais bu ngeen gisee vert jaune rouge te gisul leen ci drapeau bi rek xam leen du drapeau Sénégal dégg ngeen waaye nag fu ngeen ko gis vert jaune rouge ak biddiw bi ci digg bi xàmmee leen ne lii couleur drapeau Sénégal les couleurs du drapeau Sénégal sont le vert le jaune le rouge et une étoile verte au milieu le vert la verdure, le jaune, la richesse, le rouge, couleur du sang, étoile, représente les cinq continents. Les couleurs du drapeau sénégal sont le vert, le jaune, le rouge et une étoile verte au milieu. Le vert, la verdure, le jaune, la richesse, le rouge, couleur du sang. Étoile représente les cinq continents. Les couleurs du drapeau sénégal sont le vert, le jaune, le rouge et une étoile vert au milieu. Le vert, la verdure, le jaune, la richesse, le rouge, couleur du sang. Étoile représente les cinq continents. Très bien. Les ñu ñëw ak activité langagière écrit Les comme gisoon nañ tere yi ci biir classe yi vertical n'est-ce pas en graphisme jàngoon nañ trait horizontal jàngoon nañ ron jàng nañ trait oblique hmm? jàng nañ la ligne brisée jàng nañ crochet gauche crochet droite léegi na damaa bëgg bind nag les lettres alphabétiques moom laa bëggoon a bind léegi su ma bëggee bind A dama bëgg ngeen wax ma nan laay bindee A damay def trait oblique dere mhm. oblique ma defaat beneen tere oblique ñu taxalantoo ci kaw très bien ma defaat lan tere horizontal au milieu très bien am naa tere oblique tere oblique ñu taxalantoo ci kaw ma amaat tere horizontal b tere vertical très bien ma am crochet gauche en haut. Mhm. ma am crochet gauche en bas très bien deux crochets gauche collés plus le trait vertical am B très bien C Amna crochet droite D très vertical crochet gauche E trait vertical trait horizontal en haut trait horizontal au milieu trait horizontal en bas très bien F, trait vertical, trait horizontal en haut, trait horizontal en bas. G, crochet droite, petit trait vertical, trait horizontal. Très bien. H, on a un trait vertical, trait vertical, deux traits verticales parallèles, barré par un trait horizontal au milieu. I, on a le trait vertical, Terre horizontal en haut, terre horizontal en bas. Ju, on a la canne inversée, plus la terre vertical en haut. Très bien. Ni la les lettres alphabétiques fu ngeen ko comme jàngoon nañ tere yi ci biir classe yi ngeen utiliser tere bindel moko normal bugguma ci benn yak. terre yi ngeen bindal ma ko jar na bala ngeen di bind kenn tracé trait yi ba pare su ngeen bindee trait yi ba pare nga xalaat nag trait bi ak trait bi moom lay boolante bii ak bi moom lay boolante pour ma mën a bind lettre alphabétique yi leer na c'est clair c'est clair très bien loolu leer na très bien léegi ba tey ñu ngi ci logico ba tey ah logico mathématique les notions de position et d'orientation léegi damaa bëgg ngeen waxee ma ci kaw lan moo fi nekk ci kaw am na ventilo waaw ci kaw am na ventilo ci suuf lan moo fi nekk ci suuf am na ay banc très bien ci suuf am na ay banc am na table am na ay chaise en haut mooy ci kaw en mooy ci suuf en mooy ci kaw en mooy ci suuf en mooy ci kaw en mooy ci suuf léegi jëbu enwo haut en gisoon nañ ko la cours bi passé di ñu def révision def ci révision ci enwo haut en ci kaw nga laaj xale bi lan moo fi nekk dina la wax ventilo moo fi nekk ay zinc moo fi nekk wala plafond moo fi nekk dina la ko wax nga ñëw ci suuf mooy la ci suuf am na ay chaise am na ay table ah am na ay gutt am na ay saak très bien mu identifier o bi ak baa bi xam fi mu gisee ci kaw xam ne fii moo ci kaw bu gisee suuf xam ne lii mooy ci suuf bon ñu ñëw ci devant derrière devant mooy ci kanam derrière mooy ci ginnaaw devant mooy ci kanam derrière mooy ci ginnaaw devant mooy ci kanam derrière mooy ci ginnaaw devant mooy ci kanam derrière mooy si ginnaaw sa kanam sama kanam lu fi nekk taabul la bunt la lii la lii la sama ginnaaw lu fi nekk sama ginnaaw am na mur am na ay oto am na ay vélo fi mooy sa ginnaaw sa ginnaaw mooy fi nga xam ne mënoo koo gis xanaa nga gestu waaye fii mooy sa ginnaaw sa kanam nag mooy li nga xam ne il est devant toi mën nga kaa gis mën nga koo laal mën nga def lépp mooy li sa kanam grand petit garan mooy lu mag pëti mooy lu ndaw comme am nga soow bu mag am nga soo bu ndaw am nga kaye bu mag am nga kaye bu ndaw am nga chaise bu mag am nga chaise bu ndaw am nga table bu mag am nga table bu ndaw très bien grand mooy lu mag petit mooy lu ndaw lu mag lu ndaw garan mooy lu mag petit mooy lu ndaw identification gauche droite gauche moy sama loxo càmmoñ droite moy sama loxo ndayjor la main gauche moy loxo càmmoñ la main droite moy loxo ndayjor la main gauche moy loxo càmmoñ la main droite moy loxo ndayjor la main gauche moy loxo càmmoñ la main droite moy loxo ndeyjoor la main gauche mooy loxo la main droite mooy loxo ndeyjoor la main gauche mooy loxo càmmoñ la main droite mooy loxo ndeyjoor la main gauche mooy loxo càmmoñ la main droite mooy loxo ndeyjoor loxo ndeyjoor lan lañ koy defee loxo ndeyjoor moom la ñuy lekkee moom la ñuy naanee moom la ñuy nuyoo très bien loxo ndeyjoor la ñuy lekkee loxo ndeyjoor la ñuy naanee loxo ndeyjoor la ñuy nuyoo. loxo càmmoñ est dañ koy lekkee déedéet loxo càmmoñ est-ce que dañ koy nuyoo déedéet loxo càmmoñ est-ce que dañ koy naanee déedéet kenn du ko lekkee kenn du ko nuyoo kenn du ko naanee dégg ngeen dee leen lekkee loxo ndeyjoor di nuyoo loxo ndeyjoor di naanee loxo ndeyjoor c'est waaw léegi ñu am à l'intérieur à l'extérieur à l'intérieur à l'extérieur intérieur mooy lan intérieur mooy ci biir ci biir classe bi extérieur mooy ci biti classe bi très bien Tata Soukeye est à l'intérieur de la classe Ami est à l'extérieur de la classe intérieur mooy ci biir extérieur mooy ci biti à l'intérieur mooy ci biir à l'extérieur moy ci biti manam ci bu la nexé nga negbi, ci biir néeg bi su la nexé nga ne ci biti néeg bi su la nexé nga ci biir néeg bi su la nexé nga ci biti néeg bi wala nga né à l'intérieur de la classe ci biir classe bi à l'extérieur de la classe ci biti classe bi intérieur moy ci biir extérieur moy ci biti ci biir ci biti ngeen xamé ko ci biir classe bi ci biti classe bi man mak yeen ñu ci biir classe bi oustaz ami ñom ñu ngi biti ci biti classe bi koku nekkul ci biir ci biti la nek ci biir moy ñi nga xamne ñu ci biir classe bi de ngeen wala ci biir bi wala ci biti ci bi leer na pere de loin de pere de moy lu jégué loin de moy lu sori pere de moy lu jégué loin de moy lu sori tata sukay Tatasuke après de la table. Mariam gana est loin de la table. Tata roqaya Tata euh, Sukay mu ngi jégué table bi. Mariam gana mom mi ngi sori table bi près de moylu lu jégué, loin de moylu sori. Lerna. près de moylu lu jégué, loin de moylu sori. Lu jégué, lu sori. Hmm? garab gi jege naa ko chaise bi sori naa ko leer na près de mooy lu jege loin de mooy lu sori hmm? ñu ñëw ci lourd léger lourd mooy lan lourd kan mooy ñëw mën a ñëw yëkkatil ma table bi damaa bëgg ku ma yëkkatil table bi ñu indil ma ko fi ma taxaw ni yëkkati ko mënoo koo yëkkati lu tax lan moo tax moom mënta yëkkati taabul bi ndax taabul bi dafa diis très bien taabul bi dafa diis moo tax mënu koo yëkkati yëkkatil ma saag bi indil ma ko léegi lan moo tax nga mën a indi saag bi te mënoo indi taabul bi ndax saag bi dafa dafa oyof très bien saag bi dafa oyof te taabul bi dafa diis très bien lourd mooy lu diis léger mooy lu oyof luur mooy lu diis léger mooy lu oyof luur mooy lu diis léger mooy lu oyof luur mooy lu diis léger mooy lu oyof luur mooy lu diis léger mooy lu oyof c'est clair lourd mooy lu diis léger mooy lu oyof lu oyof mooy loo xam ne mën ngaa ñëw nga yëkkati ko dem ak moom lu diis mooy li nga xam ne mënoo koo yëkkati yow kenn il faut nga am ku la ko jàppale wala doo ko yëkkati loolu mooy lu diis comme table table dafa diis très bien table bi dafa diis moo tax mënoo koo yëkkati comme armoire armoire mënoo koo yëkkati armoire dafa diis lal tamit dafa diis moo tax mënoo ko yëkkati lu diis rek mooy luur loo xam ne dafa oyof mooy léger leer na c'est clair ba tey ñëwaat ci logico mathématique ñëw ci tey rapide lent rapide ak lent moom la ñuy jàng tey rapide mooy lu rapide mooy lan oto lu def oto dafa dafa gaaw très bien oto gaaw na waaw léegi avion moom lu def avion dafa dafa gaaw très bien léegi oto ak avion ñoom ñaar bu gën a gaaw avion très bien avion moo gën a gaaw oto léegi oto ak velo bu gën a gaaw oto moo gën a gaaw vélo vélo dafa yéex léegi nit buy dox ak oto ku gën a gaaw oto très bien oto moo gën a gaaw nit buy dox avion tamit moo gën a gaaw oto très bien lay wax leen rapide moy lu gaaw lent moy lu yeex rapide moy lu gaaw lent moy lu yeex rapide moy lu gaaw lent moy lu yeex rapide moy lu gaaw lent moy lu yeex rapide mooy lu gaaw lent mooy lu yéex rapide mooy lu gaaw lent mooy lu yéex léegi bëgg naa su ma ñëwaatee sama cours bii di ñëw su ma leen laajaatee rapide mooy lan ngeen wax ma luy rapide lent mooy lan ngeen wax ma luy lent dégg ngeen su ngeen demee seen kër yi ngeen répété ko répété ko ba nga xam ne du ngeen ko fàtte ngeen waxal ma li ma waxee luy rapide ngeen ne ma rapide mooy lii su ma waxee lan mooy lan ngeen ne ma lan mooy lii dégg nga léegi ñëw ci logico mathématique sur sous l'enfant devra être capable d'identifier le sac qui est sur la table et la règle qui est sous la table notion de sur sous où est le sac Le sac est sur la table. Où est le crayon Le crayon est sous la table. Très bien. Sac bi fan la nek Sac bi, ou tata suka bi fan la nek Sac bi mu kaw table bi. Très bien. Légi crayon bi mom fan la nek Crayon bi mu ci mu ron ron table bi. Très bien. Crayon ban ron taabul bi est-ce que ci kaw taabul bi ak ci ron taabul bi benn la déedéet ci kaw taabul bi ak ci ron du du benn ci kaw taabul bi mooy loo xam ne mu ngi tege ci kaw taabul bi sous laa taabul mooy loo xam ne mu ngi ci ron taabul bi sur la table mooy ci kaw taabul bi sous la mooy ci ron taabul bi sur la table mooy ci kaw taabul bi sous la table mooy ci ron taabul bi ci ron taabul bi ci kaw taabul bi walla ci kaw lal bi si ron lal bi walla ci kaw armoire bi si ron armoire bi c'est clair leer na kan moo may jëlal crayon bi tegal ma ko ci kaw taabul bi très bien tegal nañ ma crayon bi ci kaw taabul bi kan moo koy jël mu tegal ma ko ci ron ci ron taabul bi très bien fii mooy ci ron taabul bi fii mooy ci kaw taabul bi sur la table sous la mooy ci kaw table bi sous la mooy ci ron ci ron table bi sur la table mooy ci kaw taabul bi suulaa la mooy ci ron table bi leer na hmm? c'est léegi bëgg naa nag lu ma leen ci laajati comme jàng nañ koo pare bëgg naa ngeen waxal ma ko dégg ngeen leer na c'est clair les sept jours de la semaine Est la définition de chaque jour en wolof la semaine porte 7 compte sept jours on a lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche les sept jours de la semaine sont lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche lundi mooy altine mardi mooy talaata mercredi mooy àllarba jeudi mooy alxamis vendredi mooy aljuma samedi mooy gaawo dimanche mooy dibeer léegi nag ñu yem fii te ñaan yàlla yàlla jële fi feebar bi ak jàmm ak salaam bay mën a retourné waat ci suñuy classe di jàng normal comme niñ ko doon defee yal nañ ci jug ak jàmm ak salaam bañ dellusiwaat ci suñu classe yi waaw kay jërë ngeen jëf ñu ngi ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw kay seen xarit Tata Soukeye moo leen ko doon defal jërë ngeen jëf doon defal jërë ngeen jëf doon defal jërë ngeen jëf defal